asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci ndigalul sëriñ Abo Mohamed xalifatu cheikh Mouhamadul Mamoun yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér moo yëkkati kàdduy cant ak yooyu ngërëm di ko jëmee ci mbooleem njabootuk sëriñ Modou Mamoun gépp bàyyiwul kenn di leen soññ it ci liggéey bi nga xam ne moom la fas yéene tàmbali àllarba te di ko defal Serigne Modou Mamoun mu yeesalaat këram gi nga xam ne moo nekk ci Daaru Salaam àllarba fukki fan ak juróom benn ci weeru tubaab dëppoo ak fukki fan ak ñaar ci weeru rakki gàmm Serigne Abo nag nee na mi ngi ko yëgal la ko tàmbalee ci buntu kër Serigne Modou Roqeya jaar ci buntu kër Serigne Amidoun jaar ci buntu kër Serigne Abdoul Khafour jaar ci buntu kër Serigne Mokhtar buntu kër Serigne Mbacke Assou buntu kër Serigne Omar buntu kër Serigne Abdourahmane buntu kër Serigne Abdou Amdi Moustapha May buntu kërub Serigne Asgede buntu kërub Serigne Mamor Sikab buntu kërub dëkkandoom ak bunt kër sëriñ daam bàyyiwul benn bunt kër di ko yëgalit mbooleem bunt kër yi seex yi rawatina seex si nga xam ne ñoo ànd ak moom ci liggéeyub sëriñ tubaa xaadim rasul bi di leen xamal ne àllarba lay doon bu ñu xëyee insha allahu rabbi fukki fan ak ñaar ci weeru rakki gàmm dëppoo ak fukki fan ak juróom benn ci weeru octobre sëriñ aboo nag nee na liggéey boobu mu ngi ciy soññ ñëpp taalibe yi ak xarit yi ak wëllëri yi képp koo xam ne sëriñ Moodu Maamun mooy sa bunt ci sëriñ Touba mi ngi lay soññ ci liggéey boobu di leen xam ne fas na ko yéenee tàmbali te balaa bàyyi da koo dëppale ak jamono Serigne Touba Xaadimu Rasuul ñaane woon boromam subhaanahu wa taala may ko ko nag nee na ngi ñaan képp ko xam ne fekk si nga ci liggéey boobu yàlla nga tàbbi ci njabootu Serigne Touba googu nga xam ne moom lay wax naan ical salaamatan taduumu ya salaam liya walil iyaali fi daari salaam yàlla jooju Serigne Touba di wax muy njabootu njabootam gi yàlla na la yàlla tàbbal ci biir loolee wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu